jabar nii lay mel bés lay di dama koo bëgg kii ma yàlla bëggee na ma bàyyi moom soxna ay dara xool ko rek kii ba xoolee xam ni sëbam bi tegul tegul ñaari paquet tegul ñetti paquet ay bi xeeram yam na ay xefam yam na sur mesure lay def kenn moom yàlla na ko yàlla defal jàmm ànd nag ku doy waat na nguudaami nag baabaami na borom sikkim bi Thank you. alxuraanu karim ree au milieu la dem génn some baby hair maa ko bëgg de barki alxuraanu karim yàlla na ko yàlla defal jàmm sa make up yem na poudre bi nag moom NW45 la laal mag NW45 la laal nii mag la laal NW45 mag la laal nii NW